Covid-19 gën a lëmbee askan bi file ci Sénégal Lolé waral nak ba autorité sanitaire yi jël ci ay ndogal yu ci melni installer campagne de vaccination bu yatt lol ci mim réew ab mbir bu yileb citoyen di rafetlu donte ni nak ñen ci ñoom jotaguñu jël sen vaccin non man nak jotuma vacciné wu mais bëgg na dem vacciné wu ndax ñepp dañu wara dem vacciné wu xex fièvre bi mu jigee fi lolou mo gën ndax fièvre bi ñun ñoko ko fi mën a kenn mënu ko fay jëlé te loolu bu ñu ko defee lu baax lay doon lu gën ci ñun lay doon ndax màggal gaa ngi ñëw te dañuy màggale incha allah. bu ñenn ñi fësalee ni ñàkk jot moo tax jëlaguñu seen vaccin ngóor si ñu fekk si place moom dañu xamal ni dafa ragal piqûre loole moo waral mënagul jël dose am. affaire de vaccination moom baax na loolu waaye damaa ñëwul piqûre daal. am naa yéene dem vacciné ji voilà ndaxte Johnson bu may dégg moom jamono bi dégg naa gars yi bëri na baax na. te xam naa ne incha allah su ma fi jógee sax damay dem vacciner ji. réew moom pour muy développer foo gars yi ànd ak seen santé foog santé moo ngi am rek voilà point de santé yi tamit bëri yaakaar naa loolu am na ci solo bu baax a baax. Mhm. nekk na lu ñuy rafetlu daal. Ngor Sile ginnaaw bu mu jëlee vaccin am mu ngi dalal xelaw askan wi di xamal ni vaccin yi dara nekku ci tey nit yi wax nañu dem jël seen i dose. jël naa sama première dose. donc qui euh, Sinopharm waaw je crois que djel ko mo gën parce que vaccin yi du lo xam daf lay garantie à 100 mais au moins à 80 90 donc dina la garantir donc motax dal vraiment xam nga il se passe bëri na nit ñi li ñuy wax ci walu vaccin yi boko jëlé dans 2 ans da ngay dé dans 1 an dans 3 mois yooyu yëpp c'est des spéculations donc nañ ko jël je crois moy gën te amna fu muy amna fu ñuy tollu sax donc nga yor sa carte vaccinale donc da fay nek garantie ci fepp fo mëna a dem donc vraiment mon total toute la population ñu jël seeni vaccins. nam vaccin yi du am di coronavirus waye buñu sukkandiko professeur yi saytu yaram dina tax mu virus bi bu tax Sénégal ci ñi dose ñu dem jël ko buñ ko di respecter geste barrière yi